li mu waxoon nee na mën naa ko rey kon man nangul naa ko loolu bu fekkee loolu moom loolu bu fekkee loolu lépp loolu tax ma ne ko loolu kese ko moo tax deux cent maire bi bi man lu ma ñàkk si maire bi dama nekkee xale ba léegi doom yëpp maa ci maa ci njëkk a tekki jaay naa yàmbaa sàcc naa lépp ma def ko si maire bi sàcc naa ko ngir jiwu meew bi baax. sama mag bay nekk fële. moom kooku ferrailleur la. ferrailleur la. tey mu dox suba du dox. sama benn rakk di jàll. day na jënd ko lu mu jëndee ay kay. occasion man maa la am bourse sax. bourse bi moo koy jàpp moo koy jàpp te yéen a. xam nga lu ñu war a ren ci kër ren ci kër yi. naa jaay naa yàmba. loolu yëpp def naa. Euh, bi ma njëkk a jàpp a jàpp kas. ñu ma jàppee woon sama yaay lépp lu jigéen soo ci biir kër ga da ko doon soxla. lal lal lalam si lalam bi. ak sama lal bi maa ko jaay. dafa yóbbu ci sëriñ bi. dama dem parce que dem naa ba bugg a rey sama bopp. dama bugg a rey sama bopp. dama xam ne saa saa def naa ko. moom fu mu toog day wax. sama doom yi amuñu amuñu amuñu kii amuñu noo kii amuñu njariñ. di xaaj di ñu xaas si biir kenn même sama mag bi gaañu nii. xam ni. loolu moo tax ma wax parce que ñëw na ñëw na ba ci man ci kaso. nee ma Ibou man vraiment. bugg naa dund kër ga. mais mënumaa dund ak mer. war a ko dese nit day gëm yàlla. metti na. mais nañu muñ. kooku kooku dafa demoon dafa demoon kenn xamatul fu mu nekk. maag maire bi. ñun ñooy wóor di wóor di wóor bu fekk ko Joal. dem ba sës. dama xam ne maire bi amul lu lu mu deful. ba deful ci kii voyage. jaajëf gis nga ñu gisee. ci lël bi. mooy amoon fi yëkk. ma jaay si maaraay moo daf ma dama koy jox yi mu door fii. waaw mu door ma. après mu door ma ci laa jël jaasi rek door ko jaasi bi. chaque jour ma bu ma ma bu ma xëyee di cooy. bis bu ma gisee sama yaay rek sama rongoñ tuur chaque jour la paa bi di ma attaqué léegi si laa ko boon si laa ko boon mu gaañ après may tam ci laa génn bi ma ñëwaatee fekk ne xaaral ma daj nattu sax ñu nattu ma si biir kaso bi sax moo ma gënal